daal lii mooy sunu dog dog tey tey laay def sunu dog su ma énervé damay def casquette blanc damay def casquette bleu rouge énervé casquette bu rouge am naa nga sax gisoo carton bu bleu laa jëndal bu rafet rafet xam ne solo kat laa est-ce que duma ko wane sax nit ñi xam ne solo kat laa léegi nag li war a live bi li li war a live bi Zizarito mooy lan hmm. sëriñ si ëmbal laa bëgg a waxal ëmbal ëmbal day na de hmm. est-ce que doo war daal kàddu yi tuuti kii tooloon. waaw ah. ku kan nga jël tubaab bi. te tubaab bi lu ñu sëriñ bi ëmbal jabaru jàmbur laa bëgg a waxal tuuti tey sëriñ bi ëmbal jabaru jàmbur laa bëgg a waxal mi ngi may woo soo ba tey ma boole ko mi ngi def lu ne ci àdduna man tey mënoo gi jabaru jàmbur ñu tëj jëkkëram ñu tëj jëkkëram prison nga daal di koy ëmbal ndax kaay ma defal ko ñaar. ma jëluma ci kenn parce que yow mi yaa ëmbal. boo ëmbal woon du ma ko wax. loolu la ci. ban sëriñ moo am bët. sëriñ bi xam na boppam xam na mi may xool ma koy xool. mi wax ñu lu wér la. ah <laughs> ëmbal ëmbal ban koy jiital démb ci këram di ko fekk mu yore kurus naan naan sëriñ da naan naan nakate kat nakate cagakat la du sëriñ cagakat normal la du sëriñ non mais mais nu gisee jabaru jàmbur mu lay ñaan la mu lay ñaanal nga pour nga ñaanal ko pour ci këram génn nga koy jox ay rb deux heures du matin minuit yooyu ku jigéen ki manqué mais xale la

ma dimbali leen ngir jëm rasulullah ngir yàlla ak yonent bi naa ngir sonn naa trop ci sëriñ si dama je suis fatigué sonn naa trop sonn naa lool lool chaque jour ma yee leen ngir jëm rasulullah man ma ne ko ñaan ngir jëm ra tey dama leen koy ñaan bu ma ñaane ko ci indo ngir jëm rasulullah am na nag sëriñ su aay waxuma ñëpp a bon ngeen jëmel téye na alal gi ngeen di téye ku ci am jabar na nga ko téye ku ci am jabar na nga ko téye ku ci am jabar bàyyi ko tiktok na bàyyi wax ak sëriñ ci tiktok na bàyyi wax ak sëriñ ci sëriñ ci seetlu xamuñu dara sëriñ ci ay courtier lañ am na sëriñ soo xam ne am na sëriñ soo xam ne day la ah du xamuñu dara mais dañuy dem ñaanu dañuy dem xool sëriñ bu paa bu gën a aay ci ñu ne fay paa bi 15 paa bu dëkk ku leen fay 15 bi ñu wax la àddina ñu jëlee loolu ñëw wax la lii lan la am na amuñu ay courtier lañ courtier sëriñ dafa am am na sëriñ soo xam ne ay courtier lañ mënuñu dara xamuñu dara mënuñu dara xamuñu dara liggéey ñii de ñii ma ay maçon lañu woon ñi ay jaaykaru mango lañu ñi ay téer yu perte lañu woon ñi ay jaay ko xamuñu dara dërëm xamuñu ko barke alxuraanu karim ku leen ku leen ci nax yéen a ngi nax te bopp waa sénégalais yi yeewu leen ci sëriñ ci sénégalais yi yeewu leen ci sëriñ sëriñ ci aaya ñu xam lu nangu jabaru jàmbur lay nekkee ëmbal jabaru jàmbur yi te nag ñoo gën a farox ci àddina ma wax lan lenn seeni xasawaay benn melo la ñu ngi mel ne médd noo lekk riba sax ngay xeeb gu neex mënta ne lu c'est possible Sénégal yi yeewu leen ngeen bàyyi ngeen xool sëriñ si sëriñ toj dëkk bi sëriñ am na nag sëriñ soo xam ne suñu borom may na leen barke am na ñoo xam ne waxuma ñëpp a bon te waxuma ñëpp bañ a aay am na sëriñ su sëriñ si dara mënuñu dara leen yor tuuf nit ñi nit ñi di lu baax man suñu ma tuufee xaalis waxal ñëpp lu baax parce que man loolu laay liggéey ni ñoom ay naqeekat lañ ma naqeekat laa ñoom suñu suñu bu ñëwee ñoom bu naxee kenn man ma jëm leen a nax mais duma ci kenn moo aay duma parce que xam naa ne mënuñu su mënoon dara rey nañ ma bu yàgg wala ñu sànni nañ ma kott mais mënuñu dara dara mun fa ñuy doxaane laay doxaanee au piscine xaw la da sa da ngay leen naaj sëriñ bu leen jox xaalis ba dugal la xaw la dugul xaw la ay du lay dugg duggul dara dara dara dara dara dara duggul dara xaw la ñoom dañoo xaw xaw la xale yi dañoo xaw xaw la xaw la xëy xaw lu koy sax xaw kay boo duggee xul la lu ñu koy sax xaw la boo duggee kay xaw la da xam ne kii dugg la boo le boo boo boo boo génnee boo génnee sa xeeb nekk ci dara ci yàlla ne koo di jox ma un million ma dugal xaw la dugal xaw la ay du lay dugg ba pare neex tëdd moom tëdd ak moom trois jours ànd ak problème bii góor kay buy lekkee ba suur biir bi sa jigéen bu dee jigéen nga yow sa biir bi am na lu ci ne jigéen bu indisposé biiram day metti jigéen bu génn mbaax biiram day metti jigéen bu nekkee ci waxambaane sa biir day metti góor sax biiram day metti mais mel seet lañ am ci àdduna sa biir sa liggéey bi baaxul de am na lu la def ci wet nit bu noppee ba sa wet du metti ngay liggéey sa wet day beesee sax day metti wet asama ngay liggéey sangu sax sangu sax des fois nga sa sa nga nga colandeer sawet di métti loolu lañ jàppoo sawet gi sa tànk yi tànk mais nit koy dund ah, ah du waroo métti nit koy dund da ngay métti mënoo fexe ba doo métti ci àddina sëriñ sin barki alxuraanu karim billaahi wallaahi laalo barki am na sëriñ su mu ñoo xam ne ñoo dàq duul petit cola yéen ñoo xam ne dama yi bu dee xam ngeen li ma leen wax yàq le war ngay sànni ma kortu ma loolu laay ñaan sànni bàyyi ngeen ne sànnil ma kott yéen sànnil